di gërëm acteur transport yi waaye di gërëm IDICA mi nga xam ni président IDICA bi nga xam tey moo ñu dalal fii ci gare routière Touba su ma nee président IDICA nag la lambaale la laa waale na acteur yëpp di gërëm comité ad hoc bi nga xam ni tey ñoo ànd ak ñun mu composé ay transporteur def naa président euh, Karamba Goudiaby mi ngi fi ñoom Moussa Ndiaye ngi fi euh, président Modou Mboy ngi fi ak acteurs yëpp daanaka su ma limee damay juum te day gudd donc ñoom ñëpp bàyyi seen soxla ñëw pour ñu euh, def message sensibilisation boobu am nañ ci yaakaar yaakaar gi lu ko waral mooy euh, jiite ñu dem ci bunt bu ñu waroon njëkkee mooy dem seeti kilifa dëkk bi kilifa yoon wi donc muy sëñ Mountakha muy xalif général des Mourides yéen a fi yàgg lool te ànd ak wér. Euh, ziare nañ ko mu boole noog sëñ Bass Abdou Khadre ñu dem ziare ko mu jox fa message bu rëy ci wàllum sensibilisation daanaka sensibilisation sëñ Bass rek doyoon na sëkk sëkk sëkk du woon jar sax ñuy dajewaat fii ci gaaru ceer bi tey di fi waxaat leneen. parce que kàddoom matale na doy na sëkk waaye ñu toftal ci dem ziare sëñ Abdou Karim Mbacké mu doon nit ku sage moom sax dafa ni woon bi ngeen demee ziare sëñ Mountakha xalif général dem ziare sëñ bas mu wax fa kàddoom yu rëy yu wax moom amatu fa kàddu parce que ñooñ kat doy nañ sëkk sëkk si yoon bi doy nañ sëkk si message sensibilisation waaye terewul bëgg gi mu bëgg fayub yàlla parce que li ñuy def ni jaamu yàlla la fexe ba bakkan ñoñ faxe ba euh, ñiy faatu ci accident yi wàññeeku wala ñu ci blessé loolu ab jaamu yàlla la mu ni jaamu yàlla googu nag moom it dañ si toftal kàddoom moom it mu joxe message bu rëy rëy ci wàllum sensibilisation wax dëgg yàlla loolu bu génnee si télé bi taalibe yi mu doon ndigal ci taalibe yi yaakaar naa ñëpp buñ ko jëfee rek daañu magal gi dal waaye waaye ba ñëwee fit ci gaar gi gis nañ fi ay acteurs yu mobilisés gis nañ fi ay acteurs yu consciencieux gis nañ fi ay acteurs yi nga xam ne lii ñuy dox ñor na leen ba ni ñoom seen ñun moom ñoom lañ koy doxal kon ñooñu dañ leen fekk sensible parce que gare bii ma lay wax muy garage Touba muy njaareem yëpp Touba yëpp euh, en général sensibilisation mosu fee jóg bés bu yàlla sàkk ñoom ñu ngi si sensibilisation ci lu nit xam ak lu nit xamul looloo waral sax gis nga concours bi ñu doon def ci wàllum code la route ba ak ñi ko gagné comme te fii la soqe ko kon ñooñu amuñu seen fay kon am nañu yaakaar effectivement que message bi dégg nañ ko te am nañ yaakaar ni ñaan gi sëñ si ñaan nangu na yàlla bu ñu topp ci loolu mais objectif bi daal mooy ñu am zéro accident mortel mooy ñu am ñu am bañ am benn accident bi nga xam ne da ciy faatu accident nag mënut a ñàkk mun na yem ci oto ba rek yàlla bu ci nit faatu yenn bu ci yàqu yenn bu nit gaañu loolu la ñu ñaan comportement bu muy laaj nag mooy ñu respecté yii rek juróom yi ba juróom benn di bàyyi daw xel yi boo sonnee nga noppalu boo gëmmantee nga noppalu nga bàyyi booy da booy daw it nga bàyyi euh, di téléphoné wala di def si yor sa whatsapp wala yor sa benn télé si kanam oto bi di ko seetaan yor sa musique yokk ko fort def say écouteur parce que xel mënut a jàpp ñaar boo moytoo yooyu di takk sa ceinture de sécurité oto bi oto bi balaa ngay dem nga nga saytu ko ni nga ci nawet pneu yi nga xoolaat ko bu baax parce que pneu yi day déraper éclairage bi dépassement dangereux yi ak euh, borom moto parce que code de la route ñëpp lay waxal borom moto ñuy takk seen casque yi moytu di dépasser dangereux fu ñu leen yem loolu yem fa bu ñu sartoo loolu waat naa ni lii ñaan gi ñaan ñuy def sëñ ci baax ñiy def ko ak bërëb bi ñu toog muy bërëb bu nangu ñaan daañu am na yaakaar ni nangu nangu na te am na yaakaar ni daañu a magal googu te ba euh, bakkandu ci faat permis à point boobu euh, bañ ko tàmbalee depuis mil 2017 la yéen ñëpp daanaka Sénégal yëpp changé nañu seen permis ñoom permis bi ñuy wooyee permis sécurisé numérisé ñun ñëpp changé nañu. loolu loolu benn jéego la woon jéego bu si tegoon bi mooy mbir balaa nga kay teg si réew da nga koy wutal charte ak yoon comme code de la route bi 2002 bi prévoir lu woon permi à point il a fallu ñu réviser waat code de la route bi te ba ñuy def rek code de la route bi nag acteurs yëpp teew nañ ci waxtaan la ministre Oumar Youm moo ko jiite woon ñëpp teew nañ ci waxtaan ba ñu nangu li nga xam ne moom lañ tëral ci parti boobu. posé wo question bi sax si wàllu sanction yi si war gaye ndeeg yu ñu demee sanction yi tar na lool waaye dinaa si ñëwaat léegi xëy na euh, ba tax na code de bi nga xam ne adopté nañ ko muy partie législative bi adopté nañ ko en avril 2022 bii nga xam ne bu ñu koy bu assemblée nationale mooy seule loi bi nga xam ne depuis 2012 député assemblée nationale yëpp ko bokk maasee votandoo amul majorité amul opposition voté lañ ko laa def à la euh, comment dirais-je à l'unanimité waxuma à la majorité à l'unanimité loolu mooy wane ni Sénégal aussi suñu ay ndaw mat nañu ndaw bëgg nañu lépp li nga xam ni mesure la bu ñu ko tegee dina dina aar ay bakkan loolu bëgg nañ ci dox. donc comme loolu am na ci code la am na ci partie euh, euh, législative bi mu des nag ñu waxtaanee décret bi waxoon nañ leen ko te gor ci kàddu ko ñu toog ak ñoom waxtaan nii nag yan infraction la ñuy def ci point yi infraction bu nekk ñaati point lay am. naka la ñuy wàññee point naka la ñuy def naka la ñuy tëralee lii naka la ñuy saytoo point yooyu nag contrôle boobu naka lay demee kat mooy sanctionné kat mooy wàññi point loolu yëpp foo ñu waxtaane ko te yaakaar na ne enclenché woon nañu waxtaan bi moo tax ñu si code de la route boobu ñu wote en avril 2022 du ñu jox délai trois ans pour ñu commencer appliquer permis à boobu. sanction yi saf na. sanction yi na dam ci jël ñaar rek benn bi mooy kiy dawal te amoo permis code de la route bu bees bi dafa ni yoon daan na la ñaari at ba juróomi atu kaso daan la juróomi million amende kiy dawal te waroo kiy def transport te waroo ko def maanaam Allo Dakar war Gaynde ke ñoomin seen ñi nga xam ne ñu ngi secteur def transport te waruñu ko def buñ leen ci jàppee juróomi atu kaso la ak juróomi million amende xanaa loolu leer na